liggéeykatu RTS ci bis bi amal toogaanub ñaxtu wala ñaxtu sax ci seen biir bërëbu liggéeyukaay di sàkku nag ñu fay leen salaire weeru juin bi jàpp nañ ni nag daal responsable ba nga xamante ni moo fa nekkal syndicat bi di SYNPICS wax na daal ni nag ay audit war nañ ko amal ci yorinu Babacar Diagne ca RTS ndaxte nak nag Babacar Diagne namteefam yépp nag moo di bu wanee ginnaaw ca RTS kenn dootul mën a yor kër googu reportage suñu natango Alioune Kébé ci ndimbalu Papa bureau Synpics bu RTS ne bu ñu seenub naqar tey jile mer nañu ba fottu jëmale ko ci seenum njiit di Babacar Diagne gannaaw ba ñu jotagul seenu payoor ci weeru me bile nee ñu mënuñu xaar lu ëpp juróomi fan te fayeeku wuñu nee ñu ñenn ci ñoom ñi ñu jot a fay nelawal nit ñee ko tax a jóg kii di porte parole Synpics bu RTS nag nee na yorin bu bon bi ñu yor kër googule moo jur jafe-jafe yile warul dépasser le 5 lu leer lañu bëgg mu woo am nañu donc SYNPICS nag loolu moom mënu ko nangu te di fay ñenn bàyyi ñeneen pour ñun mooy li tubaab di wax pilotage à vue dëbb dëbbal taaba taaba loolu nag day wane ne ni ñu téye finance kër gi moo baaxul bureau SYNPICS bi nag yemuñu ci laaj seenub salaire ñu ne patron bu RTS bi di Babacar Diagne da leen a war a abal ci bopp kër gi le te la koy firndeel mooy ne yàq gi bari na ndax euh, ay organisation puukare yoo xam ne euh, Babacar Diagne da ci profito taxaw ci kanamu nit ñi di jaay boppam ak di def ni ñuy wax opération de charme pour mën a toogaat ci biir kër gi moom dem na retraite yàgg na amatul ambition pour kër gi et c'est tout à fait normal looloo tax nit ñi di dem retraite ba tax na léegi dafa nekk di recruter nu mu ko neexee ci dara lu dara leerul lu ñu tegul fenn ku ko neex ak ku koy tarbiyu boo nekkoon ci biti ñu recruter la su fekkee dañ laa recruter mën nañ defar reclassement wala ñu name la poste wala nga am façon xeetu avantage bu ne l'essentiel daal na nga nangoo jàppale directeur général ak bu taxawee nga tàcc ko loolu moo tax ñun ñu njort ne dafa mel ni comme na nga naan daal damay dem comme fii laay bàyyi mbir mi daal bàyyi ma xëpp ci cere ji suuf ki fii ñëw moom ay jafe-jafe kese la fiy fekk. ñaxtukat yi nag nee ñu xeex bi lu mu laaj ñu jox ko ko ñi ngi laaj nguur gi mu amal ay audit ci kër googule ndax na muy doxee jéggi na dayoo. bu ñu indee beneen directeur général au niveau de la RTS ak personnel bi fa nekk juróom-ñetti téeméeri agent juróom-ñetti téeméeri agent ñoo nekk RTS ñoo xam ni ñii dañu leen embauché juróom-ñetti téeméer te waxuma ñi nga xam ni ñoom la ñuy tuddee ay contractuel wala ay producteur extérieur ak ay stagiaire te boo xoolee ñooñu sax ñoom ñooy def liggéey bi boo xoolee am na 400 wala maanaam ñeenti téeméeri nit yoo xam ne wala ñu ko ëpp ñoo xam ne ñi ngi tëdd seen kër liggéeyuñu te chaque mois ñi ngi leen di fay ñun boo bu ñu xoolee au niveau de la RTS li ñu fa dugal ci ay milliards te matériel bu ñu indi noonu bokkul sax ak somme bi ñu dugal si ay milliards kon ñu xam ni kon au euh, moment yi kon am na ay yàqute ay yàqute yu bëri yoo xam ne am na au niveau OCI sur le plan national loolu loolu moom moo répercuté ba biir RTS kon ñu lu ñuy demandé mooy audit yi ak campagne électorale bi parce que même campagne électorale bi dégagé nañu benn budget budget boobu ba léegi nii ñoom tuuti lañ ci exécuté mais am na tey ji matériel yoo xam ne tey ji ba léegi ñëwagul ay fly yi ñu waroon jëndaat te fly yi ñëwagul ay cabine de yu ñu waroon jëndaat tey cabine yooyu ñëwagul donc lu ñuy demande le président Macky Sall mooy nañu indi ay audit au niveau de la RTS nañu indi ay audit ñii di waa bureau SYNPICS nag nee ñu fi mu ne nii liggéeykat yi jotagul seenu payoor ñëpp a ngi toog ci ay nen paas bu ñu xëyee ngir mën a ñëw liggéey si sax duñu ko mën a am boole ceeg seeni wareef yi leen xaar ci seenu njaboot.